day waxaale ci bunt bi bismillahi rahmaani rahim nu mu bare ay njariñ mu waxal la nag yenn njariñ yaa lim ci njëkk wax mooy waxtu suba mooy gannaaw boo sëlmalee jullit suba boo waxee bismillahi rahmaani rahim fukki yoon te yoon bu ci ne nga jokk ca laa xawla wala quwata illa billahil aliyil azim ni koy waxee nag mooy nii da wax bismillahi rahmaani wala xawla nga xam ne laa xawla ji dangay ngay defaale foofu waaw ne wala xawla wala quwwata illa billahil aliyil azim muy benn yoon nga def ko ba mu fukk nag loolu boo ko defee ci waxtu suba tey mel ne set nga ci mboolem sa bàkkaar yëpp yëpp yëpp ba mel ne bis bala sa yaay juree te xam nga ne bis bala sa yaay juree moom booba amoo dara ci bàkkaar te it suñ boroom dana la fegal juróom-ñaar fukk ñaar ci ay bunti balaa yoo xam ne ci yow la jëm si woon te it balaa yu naraan a diis lool lay doon ndax yee ca naraan a gën a woyof mooy ngaana mbaa siti yooyu yëpp nag yàlla fegal la ko ba du agsi ci yow tey dalay booleek waxtu wa nga defee loolu ci suba dalay booleek moom yàlla juróom ñaar fukki malaaka yoo xam ne dañuy sax ci dila sàkkul njëggal waxtu woowee nga ko defee ci waxtu suba ba guddi ñu sax ci rek dila sàkkul njëggal ñoom juróom ñaar fukki malaaka yooyu lii nag nee na daa ñëw ci addis yonant bi ñu nettali ko fii rek ndax nga xam ne njëriñ lu rëy la nga fonk ko ba tey nee na bismillahi rahmaani rahim sutura la kaaraange la suy dox sun digganteeg jinne yi ba jinne duñ mën a lor taxul nak mu wax fofu ak lim bo xamne mom nga cey jëfëndiko ci gogu wàll neena ku am doole ku yalla bo boo lo mom te ragal mu lor la fexel ba wax rek bismillahir rahmanir rahim juroof ki yoon soko defé rek xamal ne mucc nga ci mom yalla koy noyal dal di koy toroxal ba du mën jëmele ci yow wenn ay mom señ bi ci bopp sax leral na ne ba mu jàkkaarloog tubaab ba foofee ca jeewal waxan na bismillahi rahmaani rahim jooju ni mu ko waxee juróom fukki yoon daal di waxit na ko ak na mu wañar bi ko dem ba tey ne boo dee tëdd wax bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak benn bu bañ a ëpp bañ a lu may na ngay nattable mat naa matut soo koy nattable saye boo mottali ko ba mu wóor ne mat na waaye waaye bu la wóoree mat na moom bul ko yokk loolu ku ko def guddi googee du ca dee mukk deewu mbetteel kenn kuy sàcc du ko ca mën a sàcc seytaane itam du ko ca mënal dara dara mel ne daal loolu boo ko defee ci guddi googee moom mucc nga ci ayu seytaane mucc nga ci ayu ku jóg di sàcc mucc nga itam ci ayu deeguy bettee tudd gi mu seytaane nag mu ñaan yàlla musal lu ci ayu seytaane musal lu ci ayu lépp lu amu ay faw faw bokk na ci njëriñi bismillahi rahmaani rahim saa yoo ko waxee rek araf wu ci ne daañu la ci bindal ñeenti junni yiw teggil la ca mooy jëggal la ca ñeenti junni ñaawteef yëkkatil la ca ñeenti junni daraja ci kaw nak ba ngay wax bismillahir rahmanir rahim am nga ci yene wax ko ngir yalla kesse dal di koy wax sa yo ko defé rek ñu defal la ci li patay neena bismillahir rahmanir rahim ba wañi araf yi day nek fukk juroom ñent ci kaw na nga bañ wañi walé alif gi nga xamné mom lañuy gal ci ar muy bijji ma alif googu bu dee ci rasmul quraan maanaam na njëkk a binde alquraan nga xam ne amutooni tomb amutooni maska te itam yenn alif yi dikkutoon arrahmaani boobu daa bokk ci nga xam ne alifam googu ñëwutoon kon boo wàññi araf yi te bañ cee boole alif gi bijji miim gi ci arrahmaan kon araf yi bismillahi rahmaani rahim day nekk fukk ak juróom-ñeent te it bëkk néegi sawara yi non lañ tollu manam hadith bari nak sa yo waxe bismillahir rahmanir rahim rek yalla musul la ci sawara ak bëkk ne yoy nga xamne ñoy ré sawara do ci tek ñom dara mu ñaanal nak yonante bi yalla dolli ko ngën ji teranga ak ngën ji jamm li fek nga xamne ku melni mom di labiré xéetam wi ma ngay am ngën ji lam bëgg ca boroomam li fekk looloo ngi am yàlla na ko yàlla saxalal ngën ji teraanga ak ngën ji jàmm bokk na ci njëriñu bismillahi rahmaani gone gi ñu yóbbu muy dali jàng saa yu waxee rek bismillahi joojule moom xale bi ci boppam yàlla da koy bindal mucc ca sawara bindal yaari waajuram mucc ca sawara bindal ka koy jàngal ba tey mucc ca sawara saa yoo dee war daaba rek daal di wax bisimillahi sant yàlla teg ca su boroom day seet li ndëggu ya daaba jay dox nu ñu toll rek mu bindal la ay yiw yu toll noona kon nag booy waritam leneen lu bokkut daaba ni ki oto walla saxaar rawante na avion bul fàttee wax kon tur yàlla woowu ndax yàlla tàggatal gi mu lu tàggatal daaba yi rek day xéwal gu rëy rëy ni mu koy waxee ci alxuraan kon nag bu nu tàggatalee leneen loo xam ne na mu féetee kaw daaba moom mu ne su ko ak xiyaas ñu njëkk ña ku leen ko waxoon duñ ko gëm kon foofu lañ ko war a gën a sante gën a teewlu xéwalam ak màggam ne secret yi nga xam ne daal moo ëmb ci biiru bismillahi rahmaani rahim dañoo bari lool lool kenn mënu ko takk njariñ ya it noonu kenn mënu ko topp a topp ba jot dayo ba day waxaale ci bunt bi